noonu la bëgg ñu gaawantoo ñu dem ci dossier bi la ca des nag dossier bi dafa nekk instruction ñoom ñooy taxaw xam nga su ministre de la défense wax ma sax ministre de la justice su ñooy taxaw ne procès dina am moom du moom mooy wax ndax procès dina am am déet ndax phase instruction juge bi ñuy jox mbir mi ki ko joxoon yàlla def na li muy def yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko waaye juge d'instruction liggéeyam mooy. mu xool ndax lii jar naa dem procès wala jarul dem procès su jàppee nii lii jarul dem procès parce que dara new ci da koy classé sans suite li ko firndeel mooy même juge boobu du moom moo bi ñu defee plainte contre Frank Timis ak Aliou suñu pétrole moom moo jël dossier bi ne dossier bi dara newu ci def classé ko sans suite ba ñu defee sama dossier man ma déposé sama plainte ci 94 milliards déposé ko ci moom directement mu téye ko ba mu neex ko mu ne dossier bi dara newu ci classé ko sans suite te jamono jooju dossier booboo ngi toll noo xam ne rapport of nag génn na waaye dinañ ci dellu si donc li ñu bëgg ñun mooy instruction bi comme ki fi newoon newatu fi nañ ko remplacer ci nu mu gën a gaawee ka fiy toog na gaawantu ci dossier bi parce que man acteur politique la bu ñu génnee ci lii damay dugg ci àll bi dem defi samay tournée du ma nangu ñuy baaral dossier bi saa yu ma demee na maa ngi dem Tamba ñu ne gaawantul ñëw uyu si nga ñëw ñu wax la ñaari ñàkk fay da nga demaat sa yoon ne mi nangu sa passeport ak ci dossier boo xam ne complot la bu amul dara ci biir kon loolu duñ ko nangu ñun ñoo leen gën a dossier bi nañ ko def suba suba suba suba lañ doon du dem justice ma leeral ko lañ doon xeex mooy jalgati ñu jalgati suñu suñu suñu àq suñuy droit parce que ñoom li leen arrangé woon ma leeral ko tey sénégalais yi xam nga fi mu ne nii dañoo nekk ci gu parce que plan mo foiré seen plan moo nërmelu xam nga seen plan lan la woon mooy xëy rek ñu ne am na ku def plainte contre Ousmane Sonko ñu convoqué ma ma ñëw uyu si ñu def mandat de dépôt kon jamono ji maa ngi woon rëbës toog ñu téye seen temps nag ñetti at ne dañuy def instruction loolu moo ne woon seen plan parce que ci wàllu li ñu tuddee viol ñoom siif yoon dafa ne amul app pour instruction bi juge bi su ko neexee sax mu jël 10 ans ne damay def instruction moo tax premier jour bi bañ ma convoqué section de recherche le 3 février Serigne Bassirou Gueye dafa ne waa ji waa section de recherche bu ñëwee rek def bu euh, euh, nañu décerné mandat de dépôt bi bu mu de bu mu dellu këram donc loolu moo ne woon seen plan bu ko defee ñu nëbb ma jant bi man mënatuma wax ak sénégalais yi mënuma layal sam bopp ñu jël seen i nit nag yónni leen ci télé rajo yi ñuy wax rek di ma chargé moo ñu ne la woon nag loolu duñ ko nangu d'autant que amoon naa sama malaanu kiiraay en tant que député ba ñu ñàkkee xeex boobu ñàkk xeex yi ci tegu boobu lañu ñàkkee dossier bi moo tax tey ñun ñoo leen gën a yàkkamti dem procès parce que lu lu dara newul xamul lu si nit di ragal procès suñuy avocat ñu ngi ciy liggéey chaque jour diggante boobu ak léegi am na lu ëpp ñeent wala juróomi procédure yoo xam ne déposé nañ ko sur la table du juge di leen xaar fu mu yem rek bëgg nañu waaye lu gaaw lay parce que nous ma d'accord ñu bëgg utiliser comme arme politique duma ko d'accord kon tey ñu ngi phase instruction nañu juge d'instruction bu gaaw mu def li mu war def su dee def na li mu def ko ci parce que xam nga seen dañoo nekk ci jamono joo xam jamono ju ubbeeku la te droit bi ñëpp ko xam boo acte samay avocat ñi ngi fi

fukki bakkan ak ñett dina rot pour ñu ñëwaat ñëw def leen li bëgg nax nañ seen donc ñun ñoo gën a ñu le dossier parce que phase la ñu nekk buñ ko instruire mu jaar yoon buñ ko instruire jaaru yoon leen ne te duñu complot la bokk na Sénégal yi sax xam nañ lépp jëmm du ma duggaat ci ci détails yi parce que affaire bi dafa bëree bëree bëree bëri ba suñu demoon tey ba war a dem sax procès dina xumbuta deex trop trop trop trop parce que mbir mi dem na ba ci sa kap fu mu gën a kawee ci ñoom te lépp am nañ ci ay firnde am ci ay seede lu ñu mën a teg sénégalais gis ko moo tax euh, comme seen plan daal nërmelu na ñun li ñuy wax sénégalais yi mooy xeex bi tey la gën a te dañ ci war a vigilant mooy bu dee mbir mi jaar na yoon dossier bi du jóge sax phase instruction classement sans suite bu dee jaarul yoon nag ñu bugg ñoo imposer jaay ñu doole na woon fa woon rek parce que mun peut-être def nañ ko ñeneen mu jig leen de mais man de sama bakkan laa ci teg parce que fukki xale ak ñett yi faatu waruñu maa gën a gore waruñu maa gën a bëgg seen bopp ndax am naa ci àdduna dund naa ci àdduna loo xam ne ñoom dunduñu ko te ñu jaral leen ko ki ci gën a tuuti fukki at ak ñaar la am kooku jotul xam àdduna est-ce que ñoom war ñoo gën a gore fii amul luñ fi war a euh, ragal wala luñ fi war a tiit wala ay nit lañu ñun ñu ay nit man de wax naa ko du benn du ñaar bu doon lañ ma jiñ maa ko def billaahi wallaahi du ma toog ñu naan sax nit xoosu na ci wala bakkan balaa bakkan di ci rot waaye def lu leen neex ñëw ne da ngay jaay doole nit parce que rek ragal nga ko parce que adversaire politique la boobu suñu banquee suñu yox seetaan mu mu ñu def li ñu bëgg dafa mel ni li ñuy woote nekkul ci ñun dafa mel ni projet bi ñu wan wax Sénégalais ba ñu gëm ko ñoom newul ci ñun gëmuñu ko ñun kon loolu ñun ñoo ci gën a yàkkamti te nu mu gën a yéexee gën a bon parce que élection locale c'est dans huit mois ou dans neuf mois gën saa gudd man nag nee naa leen du ma nangu ñu toog ba saa yu leen neexee nag ñu naan dañ may jaabanteeloo gi deme noonu du ma ko nangul kenn parce que nag tuuti naa trop waaye kilifa laa ci réew mi jamono ji ñu ne kon on se doit respect et su respect boobu amee mooy indi li nga wax ci respect des institutions institution mbir bu abstrait la munoo ne téye naa institution sama loxo institution mooy li ñu dëppoo ñun sénégalais yi ni nii la ñu bëgg suñu réew organisé wu kon organisation bi dañuy am ay institution mais institution bi du moom mooy jëmmal boppam ay nit a koy jëmmal su ne woon créé nañu poste présidence de la république te faluñu président poste boobu amul jëmm donc suñu ñu falee président la poste bi doog a am jëmm président boobu mooy jëmmal institution am ci ci ci ci moom taxawaayam ci nekkinam ci doxalinam bu dee moom doxalinam rafetul na rafetul institution boobu du am jëmm bi mu war a am ci ci ci askan bi kon ñun du ñu respecter institution lu dul ki incarne institution bi moom ci boppam ku respectable la mais su dee du ko respectable duñ ko respecter moo tax suñu buggee def seen yëfu tappale yi yi ay slogan yoo xam ne ñun ñëpp def nañu droit force restera à la loi force reste au peuple d'abord parce que la loi c'est le peuple la loi est votée au nom du peuple Voilà respect des institutions te yow respecté woo institutions. Macky Sall dafa respecté institutions. yi Macky Sall suba ngoon jot mi ngi jalgati institution yi ci institution yep xolal assemblée nationale rek tey lii institution la assemblée nationale bo xamné ne ay député danaan Macky suñu lu ñu wax ñu voter ñu voter suñu yoon newu ci li ca dess lool moy respecter des institutions donc So respecté qui incarne l'institution parce qu'il n'est pas respectable Nous respecter institution Bob. l'institution on lui donne un contenu ba tax institution judiciaire c'est pas les magistrats qui sont en cause wallahi les petits magistrats qui ñu mel ni lañu man mi gëm ne le poisson pourri par la tête xam nga caaxuñ xam naa ne yow yàggoo ma caat waas yéen xamu leen waas waa waa kajoor ngeen jën ci caaxoñ bi lay lay caaxoñ bay njëkk a nëb leneen di doog a nëb caaxoñu Sénégal mooy présidence de la république mooy gouvernement moom bu bonee la ca des bon caaxoñ bi nag comme baaxul ñoom dañuy fexe ba fépp ci administration ak justice comme app euh, euh, respecté wu ñu li ñu ak nit ñi ci indépendance de la justice ba nga xamné président de la république waratul siéger ak ministre de la justice nga xamné dañuy autonomiser ni ñuy tànnee magistrat yi ba paré respecter principe inamovibilité moy juge bu ñu xas fal waroo ko mën a rek né affecté n'a ko te gis nañu le ben juge bo xamné Podor dafa def liggéeyam ñu ñu affecté ko ba tay mi ngi cour suprême kon comme respecté wuñu lool té mi ngi won sen programme tay mom président de la république comme moy jité conseil supérieur de la magistrature mom danaka moy fal tay juge bi wara remplacer Samba Sall dem si yalla Samba Sall moom moo fal danaka ndax suñu paré mën nañ def lu gaaw euh, au conseil nangam mais ñëpp xam nañu formalité la léegi comme mom moy fal lolu day set li yes ci magistrat yi ñoo xam ne ñëpp xam nañu seen jaar-jaar ci ndëngte ñëpp xam nañ ni dañ leen a téye suñ leen nee defal ñu def ñu ne leen bàyyil ñu bàyyi ñooñu newuñu fi pour appliquer la loi ñooñu la ñuy jël jox leen yenn poste yi procureur euh, premier cabinet ceci la ba pare nag di leen def loo suñu buggoon tëj tey sa dex ne ko tëjal ñu ñu tëj amul lii la loi wax amul lii waxul loi waxul lii léegi noo buggee ñu respecté ñooñu noo buggee ñu respecté ñooñu. suñu jógee ne respect des institutions waaye yàlla xam na ni bu ñu jëloon les bons magistrats les bons hauts fonctionnaires teg leen ci place yi ñu war a teg léegi justice bi ne cocc parce que ñi ñi ci baax ñoo ëpp de waaye on prend les graines pourries jël leen teg leen ci yenn postes yi rien que pour def leen ku ñu bëgg a tëj mun leen mun ko tëj facilement soo toogee ba gis nga xale yi ñu jàppoon xale yi ñu jàppoon bi ñu génnee dama leen recevoir. ñu toog waxtaan lu yàgg mu am ci kenn ndóo yi dafa ma wax ni euh, no am na ci kenn ku ma njëkk wax benn affaire mu ne ma euh, bi ñu doyen des juges entendre dama ñëw di wax ak moom ba presque ay rongoñam tuuru na ne ko man dañ maa tooñ expliquer expliquer expliquer bi ma daanelee mu ne ma waaw man xam naa ni defu leen dara. waaw man xam naa ni defu leen dara mais nous on veut les gros poissons. pour am les gros poissons il faut nous ñu les petits poissons ba que le juge dina ko faut que nga ni loolu mun mun na dalal xelu citoyen ni ñun am justice bu indépendante xam naa ni defoo dara waaye comme say kilifa lañ soxla il faut ñu commencer ci yéen parce que nous, la ñu les 23 premier jour manifestation bi ne appel à insurrection ñu jàpp les 23 plus x x c'est nag man lañ ci doon ut ba moom doyen juge mu dugalaat une lettre pour nous demander à assemblée nationale de yëkkati waat sama eh, immunité parlementaire Nous avons gis benn député ci qui ci ben benn weer ñu dugal de lever immunité parlementaire donc pour nous nous avons ci comme xam nañ ni mbirum sif lajj na ñu bëggoon out yenen tey fi mu appel à l'insurrection, andi trouble à l'ordre public et participation à une manifestation interdite parce que objectif bi que nous avons ñuy def rek casier judiciaire nous mu am condamnation 6 mois sax baax na waa ji mënatul candidat nous devons ñu respecter ay euh, institution ci condition conditions. ba tax man euh, amuñu problème ak institution yi on respecte beaucoup les institutions mais on ne respecte pas certains hommes et certaines femmes qui incarnent ces institutions-là en déni total de l'état taxoon ñu ñu ñu C'est je l'assume waye nak fi may daanele la plan bi dafa parce que su doxoon tey jii du ma toog fii ma ak di wax maa nga woon rëbës te nu mu tuuti tuuti ñetti at lay woon seen yéene mooy nu ñuy def casier judiciaire bi keroog eh, ñaareelu ñaareelu anecdote bi ma lay wax bi ma recevoir ñoom ba pare bi ñuy dem ndooy boobu ma la wax bi ma defee daf ma ne gars yi keroog vendredi bi dañ ma yee fajar ñëw foofu Cap Manuel yóbbu ma benn néeg ne ma defaral robinet néeg bi. dafay senn te tey la sonk di ñëw te te néeg bi la war a dugg yaa ngi may dégg donc préparé woon nañu seen néeg campagne manuel ba defaraat ko xam naa peinturaat ko sax j'espère que peinture bi defuñu foon poson yooyu ñuy def noonu pour ne fii la Sonko war a dugg te lépp benn objectif la woon moo mooy am lu ñu dugg bind ci casier judiciaire ba sonk dootul mën a présenté wu may wax ma ki Sall ak i ñoñam ma wax leen ko gannaaw yàlla mi ñu bind ñun ñëpp te di boroom dogal moom dong gannaaw moom ak xanaa ñi ma bokkal ci parti ak ci àndandoo coalition ne investiture jot na du ñu investir soo ko parce que gis nañ candidat bu ko gën gannaaw ñaar yooyu gisuma ci àdduna lu mu mënee tee nekk candidat bu soobee yàlla 2024 moom Macky Sall tuuti na ci trop trop trop trop bu amé kenn ku dul doon candidat mom mom la ndax jeexal na troisième mandat du fi am mais bu sobé yalla bu dee bu na ni ci justice bi la yakar pour man ma baña nek nekk candidat euh, tarabat ya daaka comme on dit euh, dóor na loxoom ci ëkk ndax mënuma té nek candidat bu sobé yalla amna lu ñuy wax légitimité ak légalité président de la république da koy wax lu bari le président de la république il est légal mais pas légitime do bëgg wax foofu. waaw gis nañ ni loolu dafa mel ni métti na leen trop euh, ndax keroog bi seen waa jooju xam euh, nga défenseur u euh, lan la ministre de la défense xam nu demee noonu xam naa ni dépen défen mënul incarner noo forces d'armée moom xam naa ni leneen la défenseur leneen la lu ñun ñuy xam dégg naa ko muy wax ay waxu kacaw kacawam naan way Sonko dafa dafa bañ a reconnaître légitimité Macky mais citoyen bu mu neex mu ne reconnaître ma légitimité kooku kenn kenn mënu cee tëj nit xam nga légitimité mooy lan mooy kii ñu fal président man ci sama xol sama xol nangul naa ko ni président la wala sama xol mooy président de waaye man sama xol nanguwuma ni président mat na ma président loolu ku nekk am nga sañ-sañ bi tubaab dafa sekk dafa bi bi muy créer seeni affaire u droit ak république dafa dafa xaj ñaar légalité ak ak légitimité légalité mooy ci yoon ci yoon ci charte réew mi kii mooy président légitimité nag mooy xolu kenn ku ne lan nga ko mën a nangul ak lan nga ko mën a bañal kon kenn mënul ñëw ne forcément citoyen yëpp dinañ nangu ni président Macky Sall mooy seen président bëri na citoyen yoo xam ne ci yoon d'accord nañ ni mooy président mais reconnaître ko comme président parce que ni muy doxalee réew mi ñoom gisuñu seen bopp kon su ma nee c'est un président illégitime dàqul ni moom mooy président légal au Sénégal ndax ci constitution moom mooy président génn nañ ci élection boo xam ne dañ koo truqué def seen victoire technique mu dem euh, conseil constitutionnel ne mooy président mu prêter serment kon mooy président te kenn weddiwul ko ko ndax moo nekk pale mooy jël avion bi tukki mooy signé ci turu Sénégal kon mooy président Sénégal waaye ñun dañu ne fi mu jaar ba nekk président ni mu forcé ba nekk président condition yi mu defee élection yi benn may tànn kuy nekk candidat ku dul nekk candidat am ñoo xam ne justice nga utilisé pour éliminer leen ñeneen yi nga jénne sa parrainage pour éliminer leen may tànn kuy nekk candidat ku dul nekk candidat ñaareel bi may tànn kuy voté ku dul voté nga am ñaata ci ay ndaw sorewul million de ci ay ndaw nga xam ni ndaw ñi kenn àndul ak yow nga bañ leen jox seen carte d'électeur ba ne ba ñooñu jotuñoo wote nga xool def sa découpage électoral nu mu la neexee jël zone yi nga xam ne jàpp nga sa say zone yu la favorable la nga nga gonflé ko ak ay électeurs zone yi nga xam ne jàpp nga ni baaxul ci ñun nga vidé ay électeurs kooku su su gañee lu mu bëgg ñu ne ko gongo bravo dañu jàpp ni élection bi jaarut yoon kon gañewut kon mérité wul nekk président moo tax ñu ne ñun du président bu légitime ci ñun loolu nag ku mu métti dina la yàgg métti parce que man dama bokk ci ñeenti candidat opposition yi bi ñu génnee ci élection bi ñeenti candidat opposition la ñu woon bi ñu génnee ci élection am na tey ku dem ànd ak moom su génnee naan daf ñuy attaqué te bi ñu defee élection bi ci gannaaw ëllëg sa la ne daf la sàkku daf maa bëgg gis ñu daje fii kër euh, benn ci sama soutien yi muy kër Atepa man moom Boubacar Camara Atepa dama am ay seede mu ne il faut ñu yëngal réew mi il faut ñu génn manifester parce que waa ji dafa foqati ne ma ne comme yow ndaw yow la ñu àndal dañu génn manifeste ma ne ko du ma génn manifester parce que xeex bañ bu ci njëlbeen ba lañ ko waroon xeex biñ leen wooyee génnu leen ñaata lañ fi manifester pour mu joxe carte électeur yi ñu sànni ñu gaz lacrymogène musoo génn kon bu ñu toogee ba tey mu def li muy def te PV yépp say représentant signé ko sama représentant signé ko keneen ak keneen PV yi wane ni am na 58 pour cent xaw ma nga ne nañu génne xale yi man du ma wax benn xale mu génn te yow mi di wax ne nañu génne xale yi bu ñu bu génn jotee doo génn mu woote xale yi génn. mu am ay xalem yu génn dem RTS ñu jàpp leen fa ñenn ñi sax defe naa xaw nañ leen sonnal tuuti moom jour bi xale yi génn dafa jël otoom dem Touba demul génn day ànd ak xale yi kon kooku tey su dee bi ñu demee weesu loolu mu mu newaat il faut ñu gisee ñu gisee ñu bëri fekkee woon nañ ko ñoom Pape Diop ñoom Hadjibou Soumaré eh, ñoom Malick Gakou Boubacar Camara man li ma wax dafa am seede mm-hmm. ñu gisewaat may leen xam nga lan mooy solution bi du génn di mbedd mi di xeex xam nga luy solution bi mooy ñun ñëpp nañu bañ a reconnaître légitimité am nañu boycotté ne reconnaître nañu ko légitimité am nekk na da da dem prêter serment nekk président dawal cinq ans mais buñ ko reconnaître politiquement loolu moo gën a métti parce que musul am Sénégal 2000 bi ci génnee ñëpp nit ñi dañoo woote félicité 2012 nit ñi dañoo woote félicité maye ko loolu moo gën a métti 2000 2000 2007. Euh, ñu bari bañoon nañu félicité mais am na benn candidat bu ñëwoon deuxième dafa woote félicité mais ñu génn élection ñeenti candidat yëpp ne duñu la duñu woo duñu duñu woote duñu félicité loolu moo gën a métti ci ci kii jiite ñu d'accord ne loolu la ñuy def ñu dem daje signé suñu kayit Sénégal yépp gis nañ ko tey ana ñooñu ñëpp yow noo mu ne ni reconnaître ma légitimité nit ba pare nga dem mu lay nommer di la jox ay mbir nga dem toog ba pare ku ne da ngay attaquer ab opposant gis nga dignité mooy lépp ci nit bu jógee ci yow rek dara desul man nag position boobu ma jëloon en 2019 mars 2019 ne je ne reconnais pas sa légitimité ba keroog mandat di jeex position boobu laa jàpp teewul il est le président légal du Sénégal la preuve keroog bi bi bi bi bi bi bi mbas mi duggee mu woote ñu consulté wu ak suñu parti yëpp gars yi ne da war a dem uyu ji dama dem uyu ji ko wax ko li ma xalaat ci mbir mi ñëwaat toog il est le président légal mais amul légitimité sam bët donc suñu naree dem ci làmb nga daal di dëbb sa kaani dugal sa loxo arbitre ne prip nga sànni ma lam euh, kaani gi sa mbët gisatuma nga nga daaneel ma ba pare jóg ne naa la félicité du ma ko def kon loo loolu ñun on garde notre constance keneen beneen homme politique ne boo xam ne tey mun nga wax lii suba nga wax la li yow la concerné mais je dis que Macky Sall n'a pas de légitimité amu on woon démb la ko gën a ñàkk ndax soo demee ba sa askan yëpp won la gannaaw li xew dafa wane askan yëpp won la ko gannaaw te ci Sénégal yëpp la xew nag presque douze régions sur quatorze am des manifestations violentes kon kooku il n'est pas un président légitime waaye nag puisqu'il est un président légal man maa njëkk a ne bu kenn daaneel nguur nañ ko gungé, ba ñetti atide yi kon man légaliste la kooku kenn mënu moko ko bañal président Ousmane Sénégal moo am loo xamante ne c'est particulier moom la ñuy xamante ne saa yu këru diine yi mën euh, ñu ngi doxal suñuy diggante ñoom ci jafe ci kaw jafe yu bari nag wax moom bu jotee rek dañuy wax dëgg li mooy nit ñi dañoo dem ci këru diine yu bari. wax fa lu leen neex waa ji terroriste la waa ji salafiste la waa ji diine tarixa yi lay bañ waa ji lii waa ji laa def ko sax ci jàngu bi fu ne ñu dem fa wax mu am nag ci kilifa diine ñu jàpp loolu te boobu jamono tooguñoo ak man mayuñu ma sax chance fu mu waxee xamuñu ma miinuñu ma ànd ak loolu yëpp ñun ñu continuer nekk fa ñu nekk parce que gis nga dafa am yoo xam ne ku ko mës yëkkati ci àdduna rek sosal nañ la fenal nañ la boole nañ la ak nit ñi loolu moom ci taarix ñëpp xam nañ ko waaye dëgg mooy mujj ci lépp ñu continuer dox li ñuy dox ba jamono ji am nañ jafe-jafe yu bari ndax defe naa ki gën a am jafe-jafe léeg pour toog ak yenn kilifa diine yi man mii la ci Ousmane Sonko léeg sax mu war a seeti kilifa diine dañuy organiser organiser pour saboter pour rek ma bañ a gisee kilifa diine gi façon organisation bu ne te dara du kenn nak ku dul nguur gi ak ñi ñi fay ñu nekk ci biir këru diine yenn say ñi ay bëkk néeg lañu ñi ay euh ak yu mel non waye lolu damay japp ni perte sa temps la parce que ñun dañoo gëm ni dañoo nekk ci dëgg li ne suñu dënn li ñu yéene ci ak ci réew mi yàlla xam na ko man saa su ma jullee ma naan yàlla su dee lii ma ñi ñu sumb ni nekk ci bu dee am na lenn loo xam ne suñuy mbiru bopp la wala lu jariñu réew maa ngi ñaan nga soreel ma ko ma xëy rek nga fëgg sama bopp sa politique génn sama bopp ma nekk ci leneen moo tax dañ naan yàgg-yàgg dëgg yi mujj te dëgg gi commencé nag di feeñ ndax kilifa diine yu bari yoo xam ne demoon nañu wax leen ak yu dem ba ñenn ñi am lu ñu jàpp tey jii surtout ak li mujjee am yépp dem nañu ba gis ni ndekete lu liñ leen wax ci Ousmane Sonko amul parti bi ma ngi ci parce que Sénégal la foog nañ ni ñi génnoon les milliers et milliers de personnes pour ne pas dire millions de personnes yi génnoon di manifester foog nañ ni ñooñu ci ci ci ci weer wi lañ jóge daanu suuf wala ay Tchadien lañu wala ay japonais lañu ay sénégalais lañu di dëkk dëkk Sénégal bokk ci xeet wu ne bokk ci tarixa bu ne bokk ci diine gu ne bokk ci région bu ne kon nit ñi dañu delloo seen xel kilifa diine yi nag mooy chance au Sénégal chance bu rëy la ñu am te lii wanewaat na ko waaye ñun dañu bëgg dañuy ñaan yàlla système boo xam ne du ñu toog ba réew mi tàkk ba noppi si kilifa di nii nay doog a intervenir parce que am na loo xam ne suñ ko taxee woon peut-être bu njëkk ba sax du ñu egsi fii moo taxoon suñu programme 2019 ñu degoon dugaloon ci ni dañu war a institutionnaliser rapport yi diggante bi entre diine gi ak nguur gi dañ ko war a dañ ko war a institutionnaliser mooy fexe ba am benn couleur boo xam ne benn majalis boo xam ne euh, euh, benn majalis boo xam ne kilifa diine yi seeni ndaw ñoo fay toog conseil économique social bi lu muy jëriñ Sénégal dara HCCT lu muy jëriñ Sénégal dara mun nañu am benn assemblée monocamérale bu am doole ñu changé ni ñuy Les député yi député doon day personnalité qui askan wi la fi togal bu assemblée Nous xamné ndaw kilifa diiné ak kilifa aada ñoo fay nekk bu dara amé ci réew mi masalan bu ñu pétrole ci réew documents yi tek seen loxo def ci olofal wala ci français ku dégg ñu jox la waxtaan ak ñoom ñu ne ah am nañu pétrole de pétrole bi mi ngi à cent kilomètres ci suñu côte yi nee nañ quantité bi nii la tool nangam nangam ñoom it ñu bind ne ñun suñu xalaat lii la ci xalaat boobu tënkul nguur gi du avis avis consultatif la du du tënk nguur gi mais nguur gi mun na ne ah lii de gis naa ci ay xalaat yu rafet yoo xam suñ ko booleeg li ñu am ni ñuy ni ñuy ni ñuy ñuy saytoo suñu suñu alal dina baax waaye bi ñu defee lool suñu programme am na ñu demaat ci kër diine yi ne leen kii daf leen kii dafa bëgg tënk kilifa diine yi ba liñ daan def ci yeneen anam dootuñu ko mun def kon suñu chance ñun te mu manqué ci réew yu bëree bëri bëri damay damay ragal sax ni dafa mel ni Sénégal rek la am ci forme bi mu amee mooy ñu am ay kilifa diine kilifa diine yooyu nag ñun ñoo leen war a gën a dooleel ñun suñu bopp gën leen jëmmal ba nga xam ne rôle bi ñu war a jouer muy rôle régulation sociale rôle régulation sociale régulation sociale nag dafay commencer ci anticipation day commencé ci su ñu gisee ni lii fu mu ñu jëmee musiba la ñu teel a fagaru balaa ëllëg ñu war a euh, fàggandiku def naa loolu lañ koy waxee ba tax ñun jàpp nañ ni en tout relation bi ñu am ak kilifa diine yi man relation ku may amal relation rek relation bu sincère lay doon man du ma ci li may def te bëgg nguur du tax ma dem di di wax lu dul dëgg wala di mel di di jël ay melokaan yu bokkul ak man parce que rek ba mu bëgg nguur man koo mun ci doon ak sa daraja ni mu toll su may jëflante ak yow relation dëgg la te lu ma la wax rek xamal looloo nekk ci man relation boobu laa am ak kilifa diine yi te ñi ma ci gën a amal relation nag du ma fi tudd tur waaye nit ñi xam nañ leen yàlla xam na ni doom lañ ma def defuñu ma sax taalibe wala doom lañ ma def te relation boobu laa am ak ñoom di ñaan yàlla yàlla bàyyi lu ñu leen fi lu yàgg-yàgg di ñaan yàlla yàlla yokk leen wér yaram di ñaan yàlla yàlla yokk leen leer ak gis-gis ak xam-xam te di wax tamit ni ñun defuñu xàjj ak seen ci ci kilifa diine yi defuñu xàjj ak seen kilifa diine kilifa diine la kilifa diine yépp a baax bu dee dëppoo nañu ak li ñu woote mooy dañuy defar nit ku defar nit nag

ni ñuy recevoir keneen lañu war a mën a recevoir ñu toog waxtaan ñu wax leen lan mooy suñu mbébét ci réew mi loolu rek lañuy ñuy demandé ci kilifa diine yi di leen wax nag ni ñun seen ndongo rek lañu seen taalibe lañ seen doom lañu saa su ñu yëkkatee seen téléphone wax ñu wala ñu ñaan ñu nañ def li ñu li ñu sant te barki dem bi li amee bi ñu yónnee ci ñun it dañoo teggi lépp daal di jël mbir yi jébbal leen ko ko non lañu gis ñun ni mo wara doon relation digënté diiné gi kilifa diiné yi ak euh, ñun ñi nga xamni dañoo nekk ci géewu politique bi la ca dess nak di leen wax ni mbir mi jéxagul parce que señ muntaha yàlla na fi yagg te and ak wër euh na ko yalla may mu motalit ay nalam rawatina la lu am solo di université Touba bi kérok bi mu yebalé ay nit yebal ku mat ndaw nag señ Bass ku mat ndaw ku mat ndaw à tout point de vue man de boobu laa koy doo gis mais bi ma ko nee jàkk dama xam ni kii ku mat a wóolu la ci bépp fànn bi mu waxee dañ ko ne nangul nañ la waaye wax ji moo am solo dafa ne sëñ bi nee na bu ñaari nit tongoo di dóorante xeex bi métti boo buggee àtte doo jàpp loxo kenn bàyyi keneen ki continuer di dóor da ngay jàpp seen loxo ñoom ñaar ñëpp ñun nag boobu ba léegi ñu ngi ne tekk toog waaye gis nañu ñoom ci xaste ci saaga ci tëkkuwaate lañu nekk boobu ba léegi ñu koy gaaral kilifa yi rek te mbir mi foofu. nga nekk ci parti politique ñu naan ko Pastef parti bi nag am na muy doxee tey jii nii gannaaw événement yi fi am ak ñu ñëwaat ci parti bi réorganisation est-ce que est ji est amul ñeneen ñoo xamante ne tey ñoo nekk ci parti bi. waaw parti bi euh, defe naa mun nañu. tawte boobu mun nañ ci gaaw li may njëkk a wax mooy mbégte bi ma am ci bokk ci parti bi tudd Pastef mbégte bi ma am ci bokk ci parti bi man waa Pastef dañ may dañ may sagal saa su ne ci anam goo xam ne dama naan ñii mënuma leen delloo mënuma leen fay sagal gi ñuy sagal Pastef dafa dépassé parti Pastef famille la Pastef projet la Pastef du loo xam ne jëmmu nit moo tax mu jóg Pastef am nañu pas-pas waaye Pastef fa la jóge am engagement boo xam ne defe naa raar ñu gis ko ci engagement politique kon su ma yàlla may ma jiite parti bu ni mel saa su ne damay xëy di santaat yàlla bu baax di ko wax militant bu nekk ak militante bu nekk ma dellu wax laat ni amna nous fierté bu ci ak parti bi te it mbir mi yéen la du ñun yéen la ndax faral di parti bi at yu 2014 ba 2017 ñun la woon bi ñun la euh, parti bi ñu xam ko ñun la wol ñun ñoo doon jot coup ñun fin de 2018 ba ji parti bi yéen la militants ma leen di wax ni am naa satisfaction bu rëy leen wax nag ni lii ñu tabax ci diir bu gàtt te bëgg Sénégal rek tax ñu tabax ko amul kenn ci yéen koo xam ne dañ koo jox dërëm wala dafa yaakaar dërëm bu muy jot la waaye dañu fexe bu ko dara yàq naam parti bi mu ngi màgg ci anam goo xam ne gaw ma ni am na parti buy màggee noonu ci Sénégal wala sax ci àdduna bi saa weekend bu ne su ma toogee xool tuuti ci réseaux sociaux yi ba gis. rythme bi ñuy taxawalee cellules yi macha allah tabaarkalla yàlla nañu yàlla continuer jàppale parti buy màgg nag day màgg ak i problème am ndax ñaari nit fu ñu daje rek léeg-léeg laale am wax ma laa nag ay milliers voire ay millions de personnes waaye message bi ma leen di lancé mooy bu leen fàtte mukk objectif bi problème personnel yi bu mu bu mu bu ñu dox mukk ba ba mu féete kaw li nga xamné moy objectif objectif bi mooy soppi réew objectif bi moy appliquer suñu projet pour le Sénégal objectif moy momat suñu bop restaurer au Sénégal et au Sénégalais leur dignité lool buñ ko faté mukk donc xëccëw mun na am c'est tout à fait normal ñuy suñu de moy fexé ba cadre parti bi texte parti bi structure parti bi créer conditions yi nga xamné dinañu arbitrer xëccëw yi waye bu xëccëw bobu dem ba ñu fàtte lii nga xam ne mooy cëslaay bi lii nga xam ne mooy farata bi farata bi mooy su doon pour ñu egg fi ñu war a dem dem nañ ba gis koo xam ne moo gën a matale charte yi Ousmane Sonko Ousmane Sonko dafa war a topp toog ne ñu jiital kook moom mu topp ci gannaawam peut-être kon nañu jiital le projet suñuy suñuy individualité amul solo léeg-léeg ñu am ay ñagas-ñagas waaye li ëpp si ñagas-ñagas yi boo ko seetloo ba seetlu du parti du projet parti du projet parti bi du discours parti bi mais ay problème mu nit la nit ak nit motax faire toujours dama Nous ñun ñi fété ci kaw devons faiblir des yox parce que nous dafa metti war nga déglu ñëpp war nga may nopp ñëpp waaye waroo tam euh, faible ba nga xam ne ku jóg rek ñun parti bi nii wala ñu sur la table nga la femme équilibre tout le temps Si dëgëree fii trop ñu ne ñoom dictateur lañu dañuy décider leen neex boo trop musiba am parce que euh, euh, benn nopp ngay doon te nit ki ku jóg rek mun imposer li bëgg moom ci parti bi moo tax ñun dañ ci am responsabilité bu rëy waaye ma waxtuwaat ko ko ko projet bi ñu ci Sénégal Nous koo yëkkati ci chez Afrique Cheikh Anta Diop yëkkati woon na ko moom Mamadou Dia yëkkati woon na ko keneen ak keneen ay doyen yu extraordinaire ñenn ñaa ngi dund ba léegi ñëw ànd ak ñun di xeex ci xeex bi su ma su wëlbatikoo gis doyen Alla Kane quatre-vingt-cinq ans toujours derrière nous nga xam ne jaar na ci clandestinité jaar na ci prison rajee nañ ko ci fonction publique ñaari yoon tey mi ngi fii ba léegi di xeex xeex bi donc ñun njëkk ñu koo yëkkati yàlla may ñu ci nag lu mu mayul ñeneen du mérite de su amee mérite pour cent la te des nañ ko delloo yàlla. ma gëm ni musuñoo jege ni ñu jege ni tey war a a jot ci euh, résultat bi ñu bëggoon ay personnel ay mbirum individu message fort bi may envoyé ci parti bi wax leen d'appartenir à ce parti sama fierté jiite parti bi su ma sax tey ji position euh, danaka genre autorité morale rek lay doon bàyyi keneen nek président parti bi euh, euh, pour doxal bi gëna a oyof yomb pour mo mëna nek ci position bo xamné position wu conseil recommandation orientation ak yu demee nek, lay nek mais contane nañu trop ci militant ak militante Pastef yi mënuma ko ko tay bo du ko doyal parce que dama ci am fierté

mais également programme citoyen loolu tey jii lan ngeen ci nam waaw loolu dafa am solo dama bëgg wax wa parti waa Pastef nii gis nga li yëpp ñuy def ni. gannaaw seen objectif principal bi bi bi woon fexe ba gàllankoor Ousmane Sonko bu dootul mëna nekk candidat ci dara ak objectif secondaire mooy nu ñuy def ba tilimal deru Ousmane Sonko troisième objectif bi mooy nu ñu doon def ba décapiter parti bi wala ñu désorienté parti parce que nous gis dañu parti bi dañu parti Sénégal loolu programme yi ñu projet yi loolu moo te ñun rek koy def ci ji peut-être leader politique opposition bu ëpp lu muy def tournée tournée et internationale loo tax bëgguñu woon ma am liberté tournée yooyu nag may yégal militants yi militantes yi nañ ko reprendre fan yi bu ñu génnee ci koor gi incha allah dinañu wër fépp nag nemmeeku tour bi taxoon ñu lancé campagne levée fonds am na ku ma da ngeen doon lever ay fonds pour dem nemmeeku ji nit ñi waaye lii am yàq lañ ci jubloon far bu defar mooy Sénégal ak àdduna yëpp ñëw nañ leen fekk si yéen waaye teewul dinañu wër Sénégal fu nekk nañ fa dem. gox-goxaan yi en tout cas fi ñu mën a dem yëpp dañ fa dem te suñu yéene mooy fu ñu dem toog fa ab diir moo xam dañuy jël échelon régional wala échelon départemental waaye suñu nee dem nañu Tamba ñu dem toog fa 20 jours yu mat sëkk saa suñu xëyee jël benn direction dem nemmeeku nit ñi waxtaan ak nit ñi dëkk bu ñu dem saafonteeg nit ñi bu soobee yàlla nañ ko démarrer ci diir bu soreetul muy tournée yi. suñu paree Sénégal dañ ko def ci au niveau international nag diaspora bi muy diaspora africaine muy diaspora occidentale ba asiatique dinañu dem ñaareel bi nga xam ne bu am am solo la te ñu bëgg ko lënkale bii pas ak tournée yi mooy nemmeeku kii euh, programme vacances vacances patriotiques xam nga dañ ko tuddee woon vacances agricole patriotiques muy VAP ren dañ koy tuddee vacances patriotiques parce dafa am ñetti pàcc ci biir concept global bi vacances patriotiques la ci biir ñu vacances agricoles patriotiques muy mbay mi loolu am na évaluation de vacances agricoles yi passé macha nga xam ne yi def nañ ci loo félicité parce que ce programme yi ñuy andi dañoo benn type de citoyen boo xam ne ëllëg bu ñu yàlla dénkee réew mi parce que loo mën ci ba nga yorul réew mi mën ne xale yi dem leen bay rek ay milliers de xale bàyyi li ñu doon def bàyyi nawetaan bi bàyyi leen ak leen dem bay kooku bu la yàlla dénkee réew mi nga yor budget yor leen ak leneen boo leen ne dem leen bay waaye lii mooy accompagnement yi ngeen di jox xam nga dina yomb boo leen ne dañoo war a def ay infrastructure bëgg nañu ay volontaire yoo xam ne pendant les vacances dañu ñëw ñetti weer bëgg nañ tabax yoon bi jóge Tambacounda Kanel etc. ba Podor di nga am ay volonté yi ñëw parce que tagaton nga len ci loola demb tay doga yow moy li waji ne bala nga nan lan la sama rew di def pour man li nga wara xol moy lan la war a def man pour sama rew donc motax programme yi am solo donc vacances agricoles bi dafa am solo ben la ci patch yi ren nak ñu boole ko tournée national bi muy vacances agricoles bi ensuite mu am li ñuy wax vacances médicales patriotique VMP bële VAP la bi VMP la parce que dañu am lu lu mat téeméer ak euh, euh, ñeent fukk téeméer ak ñeent fukk ci ay médecins ak ay infirmiers ak yooyu ñu bokk ci parti bi ñoo defar document bu ama am solo ne dañoo bëgg ñoom ci même anam bi ñu wër Sénégal di def ñeenti mbir la ñu programmé gum benn bi mooy dañ def consultation médicale gratuite rawatina nag lépp lu jëm ci dépistage ñaareel bi mooy dañ def opération cataracte pour mag ñi ñetteel bi mooy dañu def euh, euh, euh, circoncision massive mooy xarafal xale yi dëkk yu bëri dañuy am problème yooyu so suñ ñëwee gratuitement suñ ñëwee ci benn dëkk dajale xale yi ñi fa mat jong ñëpp ñi fa mat xaraf ñëpp ñu jëndal leen yére njulli et cetera xarafal leen te duñu fay dara faj leen ñeenteel bi mooy don de médicament mooy maye ay garab parce que lu lu mel na ni lu yomb ci ñun tey soo feebaroon dem léegi ci pharmacie bi jënd sa paracétamol wala lii wala lii donte cher na mais am na ay bërëb yoo xam ne dañ dul gis sax pharmacie bu ñu bu ñu mën a euh, jëndee garab donc loolu muy deuxième pàcc bi ci vacance patriotique yi ñetteel pàcc bi nag mooy VCP vacances citoyennes patriotiques loolu lépp lépp lu jëm ci jëmbat ay garab mooy.

wala école yi su école di waaj a ubbi daaw gis nga lu am solo ci gars yi doon def école yu bëri ak ak ak ak sëg yi yi patriotes ñoo demone di ko bay di génne ñax bek ñom sen lolu moy 3e volet bi. bobu dinañ ko lancer momit euh ma ngi koy déclarer tout de suite ñu xam ni lancer na ko tay ji parce que lu mel non do tok daw le 6 juin defena la lancer vacances patriotiques bobu yenn côté yi foo jëmee Casamance ba Tamba commencé won na taw. waaye ñu uyu si uyu bu bu kawee suñu jot ren nag dañ koy teel a dajale lu ñu mën a dajale ci koppar euh, euh, euh, dajale lu ñu mën a dajale ci ay semence ak ay yu mel noonu pour jàppale gone yi nga xam ne bëgg nañu liggéey bëgg nañu trop bay ñu mën leen jàppale donc ñu ngi koy lancé tey ñetteel bi mooy wax nga nii lu jëm ci non balaa fusion bi wax nga li jëm ci koppar gi mm-hmm. muy lu am solo bokk na ci li leen gën a tiital ñoom bi ñu lancé nemmeeku tuur bi ci benn fan daanaka téeméer ak téeméeri million ak ñaar fukk ak juróom génn ci boobu lañu ñu gëj nelaw nag seen waajooju nga xam ne xamoo euh, li ma wax prématuré politique ñu jël ko jox ko ministère de de l'intérieur nga xam ne ah, xamul sax lu mbir mi di kii ñëw taxaw di ñu tëkku naan day tas parti bi moom tuuti na trop ci tas parti bi loolu dinañ ko wéyal bu soobee yàlla ci lu néew dinañ lancé deuxième phase u nemmeeku kii bi euh, euh, nemmeeku tour bi parce que kenn mënuñoo tere ñu dajale koppar goo xam ne sénégalais yi gis nga ki nekk Finlande ak ki nekk pôle nord ak ki nekk ndakaaru gi ñoom ñëpp sénégalais kenn ëpp sa morom droit la preuve kenn ku ne ci ñoom am na droit voter loi loi 81 bi ak li ko li ko li ko yeesal 89 ñun dañu ko gën a jàng ñun lañu tere mooy waa bitim réew su ñu nee bitim réew moo mooy koo xam ne du sénégalais ku dul sénégalais nekk bitim réew jox la xaalis wala ku nekk biir réew mi te du sénégalais jox la xaalis loolu loi bi araamal na ko mais képp kuy sénégalais am carte d'identité am nga droit contribuer ñun nag ñun ñu bëgg lu leer yaa xay ba tax. ñu ne du ñu jël xaalisu lobby ñun kenn newul suñu gannaaw amul kenn ku ñuy jox xaalis moo tax ñu nekk ci jafe-jafe ñu ne du ñu jël xaalisu lobby du ñu nangu kenn koo xam ne say mbir leerul di ñu jox xaalis lobby yi nag xam nga leen ay lobby ak homme d'affaires la yu bitim réew la wax ay lobby franc-maçon la ay lobby euh, lu ma bañ a tudd la ay yu mel noonu ñooñu suñu buggoon ñun ay milliards dañ koy nangu dañuy ñëw ne la légui ñu jox la xaaliss bu bari waye so falo il faut nga jox ma sa pétrole il faut nga jox ma sa port bi et cetera li tax ñen ñi buñu falo jël ay nit joxat leen port bi dakk ay sénégalais jox leen port bi ñu ne nak ñun dañoo bëgg garder suñu indépendance ba kérok bu ñuy dénk réew mi kenn duñu tënk kenn duñu jeng ci dara ñu mëna doxal dañu bëgg ñu ne kon ñun yaakaar nañu du dul ci sénégalais yi sénégalais yi gëm xeex bi ci ñom lañu yaakaar ñoom ñuy dajale xaalis bu dul jeex ci lu lëndëm loo xam ne keroog rek nee nañu seen benn meeting bi ñu def Fuuta rek 80 millions lañ fa def fan la xaalis boobu jógee keesu réew mi rek ñun ñu ne laaluñu keesu réew mi te kenn du ñu ngemb koo xam ne say mbir leeru sénégalais yi ne ñooy joxe suñu dërëm nga ne loolu du fi amee ñu ngi leen di waatal ni dinañu def nemmeeku tuur defaat nemmeeku tuur defaat nemmeeku tuur te bii pas sax ñaan nañu yàlla am ci 500 millions wala 1 milliard ci loo xam ne sénégalais yi ñoo koy joxe. su dee loolu rek moo leen tere nelaw defe naa ci insomnie la ñuy dëkk mu des nag léegi li jëm ci defaraat parti bi restructuration loolu ñu ngi ci wax nga léegi fusion am na lu mat fukk ak ñeent defe naa ci ay organisation politique ak citoyenne yoo xam ne dañoo ñëwoon ne dañoo bëgg a bokk ak ñun léegi parti bi ñu ngi ciy liggéey ci depuis lu yàgg yàgg léegi bu soobee yàlla ñu pare ko ñaareel bi mooy dem nañu ba gis ni texte parti bi peut-être bañ koy défar amuñu expérience politique parce que ñun kenn mësul politique ci ñun ñi ñëpp mais dem nañ ba gis ni texte yi dafa xat il faut ñu yaatal ko ñu def comité bu liggéey bindaat ko pour ñu yaatal ko xolal bureau politique bi rek parti bu toll ni Pastef bureau politique bi defe naa su bëree ba bëri 15 personnes la. lolu mënul ne dañ koy yaatal bu bureau politique bi peut-être dina nek 45 personnes ou 60 personnes ñu jël liggéey bi tassaré ko ba ba ba lu benn mbag doon doon doon doon yenu peut-être boo ko tasaaree ci ñetti mbag ñeenti mbag wala juróom mbag mu gën a oyof ci kenn ku ne yooyu ñu ngi ciy liggéey defe naa daanaka pare na presque donc ñu ngi ci loolu léeg-léeg nag nga dégg ni ñi ne congrès congrès congrès ma leen di wax nii congrès bi ñun ñoo ko gën a yàkkamti ama amaana sax bëri na ñoo xam ne tey bu ñu demoon congrès du ñu du présenté wu waat waaye congrès du lu ñuy décréter du ci réseau sociaux yi ngay toog nañ def congrès te congrès bi du ñu nangu euh, parce que léeg da ngay jàpp day day mel ni sax ñenn ñi dañ leen yebal dafa am ñu ne seen gannaaw parce que euh, lu yàq la ñuy ut luy defar congrès lu ñuy préparer la ba mu ñor parce que ci texte parti bi congrès yi du du ñun ñoo koy organiser congrès yi base bi moo koy organiser dañu ne commune bu nekk tey Sénégal cinq communes la plus diaspora bi dañ ko découper en équivalent luy équivalent su commune il faut d'abord ñu structurer communes yi. motax buñu bi ci élection présidentielle ñu défar ay carte de membre cest ko ne gars dem leen gën structurer commune. Si amé 75 de la ci commune sax yo xamné jaay nañu carte de membre yi taxawal nañu cellule, yu doy dem nañu def sen élection euh, ba élire sen bureau 75 de sax buñ ko amé mën nañ dem congrès parce que congrès bi c'est commune bu nek day moy envoyé deux congressistes Sur les 555 communes yu deuk bi ça te fait 1110 defe congressistes. plus ñuy jóge ba diaspora bi ñooñ ñooy ñëw daje def congrès bi ci ñaari fan wala ci ñetti fan ñoom ñooy valider texte parti bi ñoom ñooy bind résolution yi ñoom ñooy fal poste yi nga xam ne dañ leen war a fal ci congrès bi donc ci processus boobu la ñu nekk nit ñaa ngi liggéey temps yi nag gis naa xawoon na yéex trop nag waaye depuis affaire bi am ba ba léegi gis naa cellules yi ak section yi ni ñu koy taxawalee am nañ yaakaar ni ci diir bu gàtt bu gars yi gënee sori ci loolu incha allah dinañu dëgmal congrès bi xam ni it congrès xaalis a koy def tuuti parce que da ngay dajale nit ñu bëri ci ay fan il faut nga loger leen il faut ak yu mel noonu loolu yëpp am na ay équipe yoo xam ne dañ ci liggéey pour ñu mën a dem ci congrès ci anam gu gën ci parti bi dem congrès pour dem congrès amul benn njëriñ euh, am na ñu naan congrès mooy doxal parti déedéet congrès bokk na ci liy doxal parti chaque jour nga dégg ni tel parti def na congrès les Sénégalais sax duñu yëg ni def na parti te te parti yooyu doxul kenn xamu leen am na parti yoo xam ne demaguñu congrès te ñu ngi dox bu baax en tout cas Pastef moom mi ngi dox. Mhm. ñu ngi sant yàlla kon dinañ dem ci congrès bi saa yu mbir yëpp pare euh, li waas bi war a def def ko ñun li ñu war a def daanaka pare na dinañu woote congrès bu mag boo xam ne yaakaar naa ni sax ce sera l'occasion de faire pour ouverture bi wala pour clôture bi un grand rassemblement boo xam ne ñaan yàlla rassembler 500000 personnes. mu doon benn méga meeting boo xam ne dinañu wonewaat ëmp suñu doole loolu ñu ngi ciy liggéey incha allah. mu am nag mu am solo gannaaw tournée bi yëpp congrès yi muy wàllum kaaraange parti mais rawatina kilifay parti te bu ñu koy wax dañuy jëm ci yow wàllum kaaraange gi nan kaw ngeen koy dundee ak ba xam yéen a koy bàyyi xel bu baax a baax a baax. waaw kaaraange gi moom ñu ngi ciy góorgóorlu lii xew ni yëpp am na lu bari lu mu gën a yee ci ci ñun kaaraange dëgg nag yàlla rek a ko yor. rawatin nag bu dee ñi ngay jàmmaa lool jumtuwaay yi ñu am yoroo ko ndax kenn mënul eh, eh, ne dinaa diirante mbagg ci wàllu kaaraange ak ko koo xam ne dafa yor jumtuwaayu nguur waaye ñu ngi ci def suñu kéem kattan eh, du loo xam ne rek danga koy détaillé fii ndax kaaraange moom bu nee fang ci mbedd mi rek dootul kaaraange waaye ñu ngi ciy góor góorgóorlu bu baax sénégalais di ci jàpp bu baax it di wax nii ñun amuñu lu guna ragal gannaaw yalla amul man de personnellement amul jëmm juy dund ci àdduna di nooy ngelaw gi may nooy ngelaw yalla gi ma ragal la man amul ndax ragal yab yalla la ragal sa sa morom nit sooy ragal da ngay ragal sa borom waaye ragal nit ci yab yalla la bok ba tax it su ragal di am defena du ci ñun la wara joggé waye ci benen camp bi la te liñuy def yépp woné na liñu fimné ni dañoo ragal ànd ak loolu nag ragal gu yor nguur moo gën a dangereux ci àdduna ab buqat bu yor nguur yor ay pexe nguur moo gën a dangereux ci àdduna moo tax ñu ngi renforcer ci wax fànn woowu it lépp loo xam dafay jëm ci kaaraange et bëpp xeetu kaaraange nag ndax kaaraange yéen da koy gis rek ci ay garde corps ak nangam kaaraange weesu na loolu ñu ngi ciy góorgóorlu di ci liggéey ak ñoo xam ne seen xam-xam ci loolu la màcc di ci def lu bëree bëri loo xam ne. Euh, jàpp nañ ni suñ ci boolee ndimbalu yàlla euh, dina mun a am lu bëri lu muy waaye nag di wax gars yi nii réew mii ku yaakaar ni am am nga fi doole gu tax nga war a mun a song nit ñi di duma nit ñi di gaañ nit ñi da nax sa bopp te li xew rek wane na ko moo tax menaces yi wax naa léegi ndaw soosu di bokk ci Fouta Tampi xam nga li tubaab di wax lâcheté menaces yi nañ ko bàyyi parce ñu kenn dara te li ñu yaakaar mooy force de l'ordre yi mooy alkaati yeeg euh, gendarme yeeg policier yeek ñoom seen ñooñu ñun ñëpp lañ fi nekkal nekkaluñu nekkaluñu leen fi ñooñu duñu force de l'ordre APR de force de l'ordre askan wi la te xam nañ ko ñoom damay faral di wax ni gis nga police ak gendarmerie bu wattu woon tuuti rek bàyyi ñu nag ñun ak ñoom kese ñetti waxtu ñu dellu siwaat defe naa kenn du leen fi fekk ñoom ndax ñoo leen ëppi ndaw fuuf ñoo leen gën a ñoo leen ëpp xadar amul loo xam ne tey su doon jaay doole rek ñoom mun nañu ko jaay yaakaaruñu lu dul nag làqu ci gannaaw balaa may dee ñu naan force reste à la te xamuñu sax lu muy tekki may wax ni force de l'ordre yooyu ñun ñëpp lañ fi nekkal te xam nañ ni sama dërëm ak sa dërëm ak dërëm keneen ñoo leen di fay pour suñu kaaraange donc am na loo xam suñu leen ko bëggee def loo it ko nangu lii ñuy def nag. ba di dem jël ay sàmbaambo loolu peut-être ku la bett mën la waaye loolu dina dañ ci Sénégal bu soobee yàlla parce que kenn du nangu man duma koo xam ne dama di koo xam ne dañ la naan suñ la pesee ci ci lex lexu càmmoñ joxeel ca lexu ndeyjoor ñu pesaat déedéet loolu dina jeex ci Sénégal te foofu laa ci yem. que parti

dama di ndaw ba léegi sax peut-être ñun ñi ngi ci trans supérieur ndaw ñi léegi waye ay ndaw lañu. waaw gis na ni am barki barki démb set bi gis naa benn fi euh kon maa ngi commencé nek mag nak mm-hmm. waye dañu am cofeel ak ñewante trop ci ndaw ñi ndaw ñi jambar lañu macha allah ndaw ñu bax lañu am ndaw ñu bëgg seen bop ndaw ñu bëgg tekki parce que ki jël gal mu leer ko ni boo moytul bakkanam dina ko bàyyi ci géej gi kooku ku am jom la ku am fulla la encouragé wuñ ci benn ndaw nag pour ñun waruñu koo def waaye loolu dafay wane fulla gi ndaw senegal am ki jël désert bi xam ni mun nañ ko jàppale Libye def ko jàmm wala mu dem ba ci digg désert bi amatul ndox amatul lu mu lekk mu ba ba bàyyi fa bakkanam kooku bëgg a tekki ak bëgg a jàppale ndeyam ak baayam kooku wax dëgg yàlla ku am fulla la donc ndaw ñooñu richesse la ñun suñu première richesse du pétrole beeg gaz bi de du or bi du zircon bi ñun ñaari richesse ñu am bu ci njëkk mooy jàmm ndax jàmm jàmm ci la lépp xaj comme on dit ñaareel richesse bi ñu am mooy suñu ndaw ñi ndaw ñi dafa war a doon notre première richesse malheureusement ñoom dañ koo def mu doon benn boulet pour ñoom ndaw ñi mooy seen problème ndaw ñooñu nag laay lancer un message mooy xam nañ ne gëm ngeen suñu projet xam nañ ni am ngeen kóolute ci ñun xam nañ ni comprendre ngeen liñ leen di wax te tëbu leen rek ñëw bokk ci mbir mi walla ànd ak ñun toog ngeen di ñu observer lu yàgg ndax su doon ànd ngeen ak ñun depuis début ba kon 2017 du ma doon am duñ doon am 37000 voix élection législative su doon même élection présidentielle. Melon ngeen ni ci ñun kon duñu am 600000 et quelques voix kon da ngeen tok di setlu di setantal di ragné ñu bari ci yeen sax gëmu leen ñu won wala amon ngeen dut waye di dem di gis ni luñu leen mësa wax rek tek dom ngeen ba tek ci seen bëtt ngeen ñew dugg ci projet bi ñew leen pour Ousmane Sonko mo wax leen nak ni li dess pour ñu yegg fi ñu bëgg jëm lu toll ni la té nak ci ëppalé ndax seen avenir la. yàlla nag moo xam moom rek a xam kañ lay jël bakkan waaye soo jëlee ku am quatre-vingts ans quatre-vingts ans aujourd'hui nga jël koo xam ne mi ngi am dix-huit ans suñuy yaakaar dundaat lu yàgg Sénégal xanaa ki am dix-huit ans lañu gën a yaakaar ni peut-être mun na dundaat soixante-dix ans wala quatre-vingts ans quatre-vingts ans waaye duñ ki ki ki ki am quatre-vingts peut-être su gën saa gudd yaakaar nañ ni peut su guddee fan ba gudd fan mun na am cent ans cent vingt ans yàlla xam. te bu demee ba âge yooyu amatul lu muy bëgg ci àdduna waaye yow ndaw mi yow lañu yaakaar ni dese na lu bari ci fii ci àdduna te la ko ñaanal yaakaar it ni la la fi dese day ànd ak ay bëgg-bëgg bëgg nga tekki bëgg nga dund ci ci ci ci lu teey bëgg nga am sa kër bëgg nga samp sa kër bëgg nga jàppale say waajur bëgg nga am say oto nangam nangam kon loolu nee naa la des pour ñu mën a jëlaat suñu réew parce que moomu ñu réew mi de ñun ay doxandeem lañ suñu biir réew. waaye li des pour ñu mën a jëlaat suñu réew moom ko defar ko nag ba sénégalais bu ne gis ci boppam lu néew la waaye pour ñu mottali ko yow ndaw mi laay waxal d'abord bu dee gëm nga projet ba mu jaraloon la bi nga sentiree ni ñu ngi bëgg a faagagal projet bi nga génn jàmmarloog alkaati jàmmarloog samba boy bàyyi bakkan ci rot ñenn ñi gaañu ci tey am na ku ci ñàkk bë bëtam tey am na ku ci ñàkk loxoom tey am nañu ku ci ñàkk tànkam li tubaab naan kii peut le plus peut le su dee loolu jaral na la ko dem taxaw fu ñuy bindoo pour am carte électeur war na laa gën a mën a yomb yow ndaw mi donc ci diir bu gàtt dinañ ubbi inscription ci liste électorale yi ngir yàlla ndaw ñi bu ci kenn des nag dem leen bindu yéen ñëpp dem leen bindu dinañu taxawal ci commune yëpp nag ak ci quartier yu bëri dañ taxawal ay comité yoo xam ne dañ leen di jàppale wax leen ban kayit ngeen war a dut orienté leen ba ngeen xam fi ngeen war a bindu parce que piège bi ñuy def ñoom te defoon ko 2018 ak 2017 ak ñoom seen du ñu wax nit ñi fan nga war a bindu jee bu ko defee ñu bëri dañoo dem bindu ci commissariat boo demee bindu ci commissariat carte d'identité rek nga ngay am dañuy bind ne peut ci gannaaw waaye su ngeen di bindu dem leen ci commission yi commission électorale fi ñuy bindoo préfecture yi la ak ñoom seen ngeen dem bindu foofu dina leen jàppale wax leen yan kayit ngeen war a ut su ngeen ko utee ngeen dem bindu waaye su ngeen bindoo it na leen jaral lu lu ne mais bu leen nangooti bindu ba pare ma Macky Sall ne du leen jox seen carte électeur su su téye carte électeur yi élection du am Sénégal te yéen mun ngeen ko tere na ni mu amee droit moom voté njabootam am droit voté non ngeen le droit voter. ndaw ñi moment bobu rek ngeen am pour sen carte. nit ñi dégg c'est le moment du choix bu loolu wéso da ngeen di 5 ans di xaar di jambat donc na ngeen dem bindu waye gannaaw bindu bi na ngeen mbir mi carte élection a carte carte parce que c'est un droit constitutionnel Macky Sall momul kan mo wara a kan mo warul wote lolou bu ngeen ko defee bésu vote bi jot ngeen genn te suma né botu bëtu vote bi du rek 2024 de ñi ngi dëgmal élection locale bo buggee def résultat 2024 fay commencer ci nga def résultat ci élection locale yi li fi nekk ci ay maire te ci li ci ëpp ëpp ëpp yeen ñep yéen ngoy ngi xam xam ngeen ni matul maire ñu commencer ci loolu buñ ñu jógee ci loolu 2022 ñu dem ci élection législative fexe ba jël assemblée nationale bi wax ma leen dugal groupe parlementaire de loolu moom mooy objectif minimal bi mais fexe ba jël assemblée nationale te ñi ñaa ngi 2024 mais dama bëgg jeunes yi xam ni bu jëlee assemblée nationale 2024 2022 mooy 2024 formalité la gouverner tout le Sénégal parce que dinañu voté loi yi ñu bëgg a pour réew mi dinañu saytu ni mu yoré réew mi li ñuy wax contrôle de l'action gouvernementale def ay commission d'enquête parlementaire ñu xool scandale yi fi am kon boobu diggante 2024 ak 2022 ak 2024 déjà ñun ñooy gouverner kon échéance yu am solo la ngir yàlla génn leen massivement ngeen def loolu ba pare ngeen dem vote ji bu ngeen voté ba pare bu leen sori bureau de vote yi de parce que yéen a mën a nekk les garants du respect de votre vote nit ñi bañ a voté massivement pour que mbir mi soppiku ñoom ñu dem wëlbatiku résultat bi def leneen loolu bu ngeen ko defee seen jaan wàcc na la ca des ñun la li ñu diglanteeg yéen dinañ ko def ba mu mat sëkk kon ay combat ngi ñëw gañe nañu ay combat yu am solo sant ci yàlla gërëm leen ci waaye combat yi ñuy dégmalit yu am solo la na ngeen ci intéressé wu parce que dañuy faral di wax ni jeunes yi intéressé wuñu ci politique politique nag mooy réew te politique kenn moomu ko te c'est pas parce que yaa ngi intéressé ci politique que da ngaa euh, salte nga ba noppi nit ni la yàlla bindee ak dañ la yare ak valeur yi nga gëm foo dem da nga ko fay yóbbu bis bu dee les hommes et des femmes de de de de valeur bu ñu duggee ci politique politique bi soppiku mais su dee ñi seen loxo set ñëpp ñi bëgg réew mi ñëpp dañu naan ñun suñu yoon new ci mais ñeneen ñooy ñëw jël réew mi di def li ñuy def rek. ñu nekk fi di jàmbat kon la jeunesse dama bëgg ngeen xam ni vous avez les cartes en main le changement c'est vous et vous seul su ngeen bëggee changement 65 de la population yéen la région. donc ça c'est une majorité écrasante su ngeen bëggoon changement changement am kon nañ ci góorgóorlu la ca des nag mooy xeex yi ñu war a pour que ñu def élection yi à date d'accord ñu pour Macky Sall yóbbu élection locale yi en 2022 parce que bu ko yóbbee 2022 2022 élection législative du am da koy dàq parce que loolu la ragal limu ragal moy assemblée nationale tombé ci loxo opposition Macky Sall nak momul rewmi momul nit ñi du mom moy décider kañ lañuy élection ak kañ dafa am calendrier bo xamné constitution bi moko ko fixé dafa am calendrier bo xamné code électoral moko ko fixé moom mënul am sañ-sañ mom benn nit rek né mom moy fixé saa yu ko nexé donc loolu ay xeex xeex la yo xamné Sénégalais dañ ci wara taxaw pour ñu xeex ko benn yoon pour euh, jële leen fi te jële bi mi ngi jaar ci élection du jaar ci coup d'état du jaar ci daaneel ab régime waaye day jaar ci élection yoo libre et transparente Motax ñu né même ki wara organiser élection yi benen xeex la bo xamné ñepp nañ ci taxaw soit ñu nommé benn ministre de l'intérieur bo xamné tay def consensus comme ni général Cissé nekkee woon comme ni général Niang nekkee woon et cetera wala waaye pa di ñu am ni nga xamné ne kenn xamul lu mu doon wala nak mënu ñu def lolu ñu créé benn organ indépendant autonome boo xam ne comme réew yu bëri ci àdduna mooy organiser élection yi yooyu yëpp ay xeex la yoo xam ne ñu ngi ciy woo Sénégalais yëpp rawatina jeunesse bi. nekk nga député biir assemblée nationale bu mel ni nag am na loo fay dund euh, mel ni da nga faa wéet parce que souvent comportement yi nga xamante ne say collègues député am nañu. Mhm. comportement yi nga xamante ne say collègues député am nañu tey jii ne lan mooy la nouvelle posture en plus gis nañ aussi am na ay dossiers scandale souvent yoo xamante ne doon nga ko bind wala boog ay questions yoo xam ne doon ko yónnee ñi nga xam ne gouvernement mais daanu am réponse tey jii nii quelle est la nouvelle posture de Ousmane. waaw loolu xam nga ay weeri weer ci gannaaw waxoon naa ci benn euh, déclaration de presse que député bi ma doon tey mënul doon député bi ma doonoon avant 2019 parce que dañu dem élection présidentielle yàlla may ñu ñu génn ci ak beneen statut xeebuma kenn nag waaye assemblée nationale 165 députés la ñu fa. Euh, defe naa cër bi ma yàlla may tey ci politique fii Sénégal bokkul ak li ëpp ci la fa ne ci député loolu yàllaa koy def du lu ñuy ndamoo wala lu ñuy fëgg dënn wala yu demee noonu ba tax fi ma toll ci Sénégal ak ci Sénégalais yi mënatuma may sam bopp di dem ci assemblée nationale dafa fekk yenn xeetu député yoo xam ne dañ leen naan demal saaga Ousmane sonk demal xuloog Ousmane Sonko soo fa jëlee kàddu ñuy tëb di dal di saaga di xaste sama sama statut dépassé na loolu parce que ñoom ki leen yebal pour ñu def loolu muy Macky Sall ci boppam mooy sama nawle tey ci politique dootul sax sama nawle ci politique ndax moom jeexal na te maa ngi yéeg kon bokkuñu kiy wadd ak kiy yéeg bokkuñu kon mënatuma permettre loolu sama sama bopp waaye ànd ak loolu yëpp nag dinaa continuer dox sama mandat député parce que duma ma ndax sénégalais dañ ma wóolu ba 37000 sénégalais ñoo woté won xam nga 38000 sénégalais ñom haine bi ñu am ci man ba so xolé keroog bi ñuy lever immunité parlementaire bi c'était pitoyable sax da nga leen yërëm ku ci wax ci Ousmane Sonko gémmiñ gi day fuur xam nga lolu haine la motax duma leen may plaisir bobu d'abord parce que dama war a honoré ñi ma wolu won ba falma duma leen may plaisir bobu mais sama mandat député dama koy continuer wel à ma façon moy député dem assemblée jël sa 3 minutes wala sa 5 minutes temps de parole moy li gëna a ci liggéeyu député député benn dafa am fonction représentation moy dafa wara téwal askan bi fofu di xol problème askan wi di ko wax ñaar dafa am fonction de contrôle de l'action du gouvernement moy saytu nguur gi nu mu yoree réew mi ñettel mu am fonction législative moy woté loi donc tay ñaari njëkk yoy moo ma ëppal solo moy contrôler nguur gi ni mu yoree réew mi ak nekk fi pour waxal askan bi moo tax damay bind nguur gi constitution dafa ne man député am naa sañ-sañu interpeller gouvernement bi mooy question écrite yi ngay dégg bind naa question écrite yu bëri nguur gi tontu na ma lii am nii moo taxoon sax waxaguma ci mais ci fan yi di ñëw dinaa def ay conférence de presse wax ak askan wi ci li xew ci réew mi par exemple dossier 94 milliards yi dinaa ci wax dinaa ci wax parce que ñoom seen justice nee na classé na ko sans suite waaye heureusement bi may saisir dama saisir justice ñaar ci justice procureur nga xam ne procureur Macky la ak doyen des juges procureur musul wax ci dossier bi doyen des juges ñëw ne classé na dossier bi sans suite waaye yem woon ci ñoom dama saisiroon inspection générale d'État ak OFNAC yàlla def OFNAC nag def na rapport bu ama am solo ne li Ousmane Sonko wax yépp dëgg la waaye yemul sax ci dossier 94 milliards dafa génnewaat yeneen 26 dossiers yoo xam ne noonu lañ ko gérer. moom of nag ay milliards yi yu nit ñi luubal ci ay caaxaan. yeneen dossier yeneen dossier rapport bu toll nii balaa may wax ci dossier balaa ma ciy gën di wax dama bind présidente of nag ne ko damaa déposé woon benn benn benn dénonciation fu mu toll mu ne ma ñun def nañ suñu rapport ba jox nañ ko procureur depuis octobre 2000 2019 octobre 2019 ba léegi sëñ Bassirou Guèye mi ngi ci teg tànkam. dañu bind ci rapport bi mooy li Ousmane Sonko yëpp wax dëgg la te am na sax lu ko gën a garaaw ne nag nañu ubbi de poursuites judiciaires contre ñi ko def cité leen nommément ñoom ñëpp procureur teg ci tànkam dinaa ci wax mu ne fang avec preuve à l'appui wax ak sénégalais yi luubal ay milliards et ba pare Macky Sall jël ñoom ñëpp làq ci gannaaw ne kenn du leen laal ba pare bëgg a ñeneen loolu dinaa ci wax bindoon naa question écrite ci phosphate Matam bi tontu nañ ma wax seen i waxu kacaw kacaw dinaa ci wax bind naa question écrite ci brèche Saint-Louis bi di gis neen barki démb chinois yi jóge nañ fa tey laa gis ñu ne état bi neen day porter plainte li ma wax yëpp seen tontu dara du ci du ci dëgg bindoon naa question écrite ci état wu infrastructure Casamance yi ay pont yu bëri nga fa di waaj a daanu bindoon naa question écrite sur les accords de pêche ak ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp bindoon naa question écrite ci patrimoine immobilier état bi ñuy jaay mooy immeuble bi ñuy jaay biir ville jaay ko seeni xarit ak li ñu def camp Leclerc yooyu yëpp jot naa tontu yi loolu nag sama sama rôle député la bu ci diir bi ci ci fan yi di ñëw dinaa xool bés boo xam damay woote conférence de presse boobu c'est pas Ousmane Sonko président de Pastef c'est Ousmane Sonko député à l'Assemblée nationale buy tax taxawal réew mi di saytu lu ñu yoree réew mi di waxal askan wi may ñëwaat jàkkaarloog askan wi ne leen dossier bi lii la ci nguur gi def te waru koo def lii lañ ci luubal lii ci lii ba ñëpp xam lan moo xew loolu sama rôle député la te loolu defe naa moo ëpp solo dem assemblée di fa xuloog di xiiroog ngaay ak ñoo xam ne euh, euh, euh, suñu génnoon ci mbedd mi di dox sax sénégalais xamuñu ne député lañ amuñu benn ambition lu dul peut-être naka la ñuy def ba ñu dugaat leen ba Macky dugaat leen ci liste député kon est-ce war naa dem te di xuloog ñooñu ci assemblée déedéet kon loolu mooy sama taxawaay bu bees ci ni may doxalee sama mandat de député. nga am nag benn vision boo xamante ne souvent dañ souvent mos naa la dégg nga tu es un Africain du Sénégal bonne bonne relation nga am entre bonne vision nga am euh, entre le Sénégal et les autres pays d'Afrique cest la vision interafricaine la vision panafricaine. waaw man dama bok ci ñu gëm ni suñu réew yi mënuñu dem lu dul nangu nañu daje parce que tubaab bi bi mi dem demul ci coobareem demul parce que dafa bëggoon dem. waaye bi muy dem dafa ne dinaa def mbir mi noo xam ne ñoom ñëpp dama leen di mun a téye bokk na ci loolu nag ni mu fexee ba dagg suñu réew yi ay pàcc pàcc pàcc ay ay dagg-dagg yu ndaw yoo xam ne Sénégal cent quatre-vingt-seize mille kilomètres carrés la cent quatre-vingt-seize mille kilomètres carrés du du réew bu viable su ma nee na Sénégal waxatuma Gambie nga xam ne trente-sept mille kilomètres carrés la waxuma Gambie waxuma Guinée-Bissau waxuma Euh, Togo euh, Bénin etc donc réew yu mel noonu tubaab bi moo ko defee pour mun ñoo téye ba pare nag fexe ba saa su ne mu fexe ba placé fi ay ditam ay président am yoo lu mu il faut mu jeex ñun nag dañoo gëm ni li ma wax développer suñu c'est-à-dire dafa am ñaari notion yoo xam ñaari kii il faut ñu am développement am puissance développement moy fexé ba sa kom kom dox sa réew organisé bu baax puissance nag moy fexé ba am doole bo xamné ne dañ lay respecté té kenn du tok bané ne tey ma ma dal sa kaw développement réew mu ndaw ndaw ndaw Suisse réew mu ndaw ndaw la Belgique réew mu ndaw ndaw la ils sont très développés Danemark Pays-Bas Suède euh, Norvège ñooñu ñëpp ay réew yu ndaw lañu ci superficie ak ci population mais ñoo ëpp développement ci indice humain mooy So nat kenn ku Nous limu am ci ci nit ñi ñom États-Unis sax ñoko les Chine sommes kon réew bu tuuti su dee gérer nañ ko ko war gérer wu puissance c'est-à-dire doo Suisse wala Norvège Danemark euh, attaqué na Syrie wala attaqué na euh, Irak wala parce que c'est pas des puissances ay France yi sax dootuñu puissance tey les deux grandes superpuissances c'est les États-Unis et la, et la Chine Russie top petit, puissance militaire mais économiquement dooleem demeewul non. kon man sama rêve que ñu am des puissances africaines nous li ñu ko zone CEDEAO 16 pays CEDEAO avons ak juróom ñu fexe fédération Afrique du centre Afrique du nord Afrique du sud Afrique de l'est def Nous avons 5 ou 6 grandes fédérations. Si nous avons une fédération, nous avons une confédération africaine. Nous ne pouvons pas attendre Aduna. Mais déjà, si nous avons une fédération sous-régionale, sous-régionale, nous avons une fédération. Si les zones si nous avons une bonne 6 300 000 km. 2 Vous avez une fédération 196 000 km. 2 Vous États-Unis, nous avons km. 9 800 000 km. 2 Chine, avec 9 millions 500 000 km. carrés euh, euh, Russie, sont à 11 millions ou 12 millions de km. Nous sommes pays qui sont Quand on a une puissance, il faut d'abord un territoire. Il faut avoir un marché. Sénégal, nous sommes 16 millions. Nous marché. Même si on a une entreprise qui est très mag. nous avons un marché Mais si nous avons une zone CDAO, nous avons dépassé 300 millions. Vous voyez sommes aux États-Unis dañu jege États-Unis bokk dañu xaw a États-Unis Il ngay commencer après il faut réussir d'autres choses solo rek doyul après il faut réussir un système démocratique il faut réussir une bonne gouvernance etc. parce que zone CEDEAO lan moo fi manqué or a ngi fi jamaa ngi fi pétrole a ngi fi zircon a ngi fi suuf suñu mën a ngi fi a ngi fi zone cdao dara dara boobu nag lañuy commencé mun a tabax puissance bu boobaa ñu toog ñi nga xam ne ñoo tolloon ak ñoom waxuma sax Chine nga xam ne conférence Bandung 1949 ñun ak Chine ñoo fa nekkoon les pays non alignés Inde ñooñu tey xam nga waxuma la raw nañu sax mais séenatuñu leen waaye waxuma sax ñooñu tey ay Turquie ay Maroc ñooy ñëw fii di imposer wu ci ñun tey suñu defoon li ma wax nii liggéey liggéey bi. ku ku bëgg ku xelam nekk dem sax ci naan daf ñuy attaqué dina ko xool xoolaat bu baax a baax a baax parce que day xam ni ñii am nañu doole loolu nag su ko ñeneen defee ñeneen defee ko xam nga l'Afrique fait 30 millions de kilomètres carrés pour 1 milliard 300 mille habitants moo tax su naan l'Afrique wàññi leen seen naissance vous êtes peuplé la Chine fait 9 millions de kilomètres carrés pour 1 milliard 400 mille habitants ñun ñu def 30 millions de kilomètres carrés au contraire l'Afrique a été dépeuplée Cheikh Anta Diop wax na ko. L'Afrique a été dépeuplée par la traite négrière, par les traites négrières. Ak yeneen ak C'est un continent à peupler. Donc loolu suñ ko amoon on va commencer à être une force politique, une force économique, une force militaire. Bu faut fu nit ñi di toog di décider ci àdduna bi Nations Unies nañ ñu fa siège OMC suñu baat nañ ko dégg ak donc moi c'est ça mon rêve ci loolu la ñuy liggéey moo tax ñu lancé euh, l'international progressiste euh, euh, africain, l'international africaine progressiste, parce qu'on s'est rendu compte que ben international politique bo africain la amul bala ñuy ki rek ñu international socialiste international libéral etc. c'est bien mais ñeneen ko concevoir mais ñun africain la lañu concevoir motax ñu ñun ci du jëm ci euh tay amna ñu lu 15 pays africains yo xamné am nañu ay nit yu bokk gis-gis ak ñun ay leader de parti yoo xam ne ñu ngi ciy dugg bu soobee yàlla dinañ ko lancé te ñaan naa yàlla ñu lancé ko fii Ndakaaru mu tombeek peut-être ma pare téere bi nga xam ne maa ngi koy bind ci sama gis-gis ci Afrique sama vision africaine mu doon occasion ñu invité ñëpp ba ci pays anglophone yi Ghana Nigéria ba ci Afrique du Sud ñu invité ñëpp ñu ñëw fii ñu lancer linternational africaine boo xam ne nag day lalu ci gis-gis boo xam ne ñun africain dañu war a gëmaat suñu bopp gëm ni amul dara lu ñu war a ñee keneen même yi ñuy andil démocratie droit de l'homme et cetera modèle économique suñuy maam ak suñuy maamaat def nañ ko li tax ma ne lii lu am solo la tey soo bëggoon laajte benn africain soo ñëwoon ne sénégalais léegi yow xam nañ depuis colonisation bi bi tubaab bi ñëwee ak yooyu xam nañ histoire bi à peu près mais lan moo amoon avant c'est rare nga benn jeune sénégalais mun laa wax. mais pour ñu mun a def loolu il faut ñu dellu fu gën a sori te loolu mënul yem ci Sénégal il faut ñu dellu ci Égypte antique septième millénaire avant Jésus-Christ ñu dellu foofu ñu ne ñun ñooy ñan suñuy maam égyptien yi ñu ñu bëgg a gëmloo ni ay nit ñu weex la ñu woon c'est faux naar yi ñu ngi ñëw Égypte pour andi islam donc bi yoon ci yàlla Mohamed ñëwee ça c'est combien de siècles après après après la après la fin de l'Égypte Cheikh Anta Diop a démontré que les Égyptiens ay nit ñu ñuul la ñu woon te li jiitu ci Égypte mooy euh, basse Égypte bi nga xam ne mooy l'Égypte nubienne diggante Soudan ba Éthiopie foofu la Égypte commencé moo tax man dem naa ba Soudan soo demee foofu pyramide yi Soudan la ëppee mais pyramide yu ndaw la foofu la ñu commencé def ay pyramides le delta mooy Égypte ci kaw après lañ ko andi bi bi bi crue fleuve bi bi fleuve bi di wàññeeku crue bi gars yi def des travaux de pour sëkk boobu la ñu commencé defar le delta du Nil donc loolu Cheikh Anta Diop prouvé na ko tubaab yi ne Cheikh Anta Diop li mu doon wax yëpp ay ay ay ay waxu daa daanu sareet la lan moo war a tax man ma gëm tubaab bi te du ma gëm Cheikh Anta Diop te mu prouvé ko scientifiquement donc suñu histoire li tax loolu am solo soo demee tey ci chinois bu am 8 ans boo ko waxee daf la naan parce que dañ leen ko jàngal école dañ laan ñun chinois nous sommes la plus grande civilisation ci àdduna parce que ñun suñu civilisation def na ans parce que dañ laan ñun bi ñuy tabax muraille de Chine tu bi ñi ngi won ci lëndëm bi ñi def la route de la soie tubaab bi dañ doon ñew di ut ci ñun kon ñun dañu wara dominer le monde xam nga amener amna histoire fu sori le turc te dit la même chose le persan te dit la même chose tubaab bi même chose mais africain boko ko il peut pas te donner des références donc ñun dañu wara de dellu période antique doga ñew période médiévale moy ngan di empire yi fi amone empire du Mali ñep dégg nañ ko dafa ñëwoon fii ba Sénégal empire du Ghana ñep dégg nañ ko empire du Songhai dégg nañ ko empire du Monomotapa Monomotapa dégg nañ ko la civilisation éthiopienne ñep dégg nañ ko mais est-ce que ñu koy jangal suñu dom ak suñu seut il faut ñu dellu ci loolu parce que nit da ngay am fierté ni samay maam defoon nañu lu reuy ba jitu aduna kon man dama wara mëna mën def lu reuy ba jitu wat aduna loolu la chinois yi def loolu la keneen di def et donc il faut ñu reconnecter et ñi am xalaat boobu yëpp ak gis-gis boobu ci Afrique ñu ngi liggéey pour bo bokk benn international mu des nag soo amee discours boobu dañu naan yow defal attention yow tubaab bi nañ la pexeel yow lii lii ñun contre ñu kenn chaque jour ma wax ko waaye nag sama bopp la gënal tekkiwul ñu bañ naa la mëntuñu nangu ñu ñëw di ñu noot di nangu suñuy alal te suñuy doom bu ñu bëggee dem foofu ñu ne kenn du fa dem bu dee wax ni d' accord ma ci franc CFA moo tax ñu naan da ngaa contre France kon maa njëkk a contre France ndax d' accord ma ci franc CFA baaxul ci suñu réew bu dee wax ni suñu or ak suñu zircon ak suñu lii dañ ko war a téye suñu réew mu njëkk ñëw jëriñ keneen kuy ñëw liggéey dina ci am li mu ciy am waaye du yóbbu lépp bu dee loolu moo tax ñu ne da ngaa contre nit ñi dama leen a contre te réewu àdduna yu développé yëpp nag noonu la ñuy doxee kon loolu aspect bu am solo la ci suñu gis-gisu politique te dañ ko assumer. di ci tàggat nit ndaw ñi ñu àndal parce que dañu bëgg ñu amaat seen dignité la dellu siwaat ci suñuy valeur xam ni kenn gënuñu kenn gënuñoo intelligent kenn ëpp ñu xel kenn li may wax nii Cheikh Amadou Bamba wax na ko El Hadj Malick wax na ko keneen ak keneen wax na ko ñii wër di dem ci kër sëñ si naan leen kii dafa contre lii dafa contre lii li war a xool mooy mar ak ñoom kan moo gën a dëppook sëñ si li sëñ si doon xeex kan moo koy xeex tey buñ ko génnewoon léegi xam ni ñun ak ñoom bokkuñu. ma dernière question euh, Ousmane Sonko tey wax nga sànq ne euh, am na yenn relation yoo xamante ne yaa tissé à l'international pour dem nag rencontrer les leaders du monde xam bu baax naka lay demee lépp rek pour préparer Sénégal mu mën a nekk réew moo xamante ne réew day changé dans le domaine économique et dans le domaine de la souveraineté côté boobu foo ci toll. waaw xam nga euh, dafa am benn affaire boo xam ñoom dañ koy bëgg a def mooy essayer ñu xoqatal. loo wax rek ñu ne dafa am ñu ne ci gannaawam dafa am ñu koy financé bitim réew loolu yëpp pour tënkuñu ba ñu lu ñu am ouverture sur l' loolu nag ñoom tuuti nañ ci ma wax ni bu soobee yàlla suñu génnee ci koor geek ak tournée yeeg yooyu dinaa def tournée àdduna bi yëpp dinaa dem dajeeg leader yi ma mën a dajeel yëpp président de la république ak décideur àdduna bi yëpp xamanteeg ñoom waxtaan ak ñoom parce que dañu nekk ci àdduna boo xam ne dafa ubbeeku te gis nga. sànq dama wax panafricanisme mais soo jëlee ku mel ni gis nga li mu bind ci panafricanisme l'Afrique aux Africains ba tax moom daf ci vision ba fu Ghana da nga naan foofu la ëpp que Sénégal ñun leçon yooyu la ñu war jël mooy dañu war ouverture mais pas seulement ci Afrique ci àdduna moo tax dinaa Nous bépp leader bu Joe Biden suba Emmanuel Macron sax su ma ko mënoon rencontré naa ko rencontré nit ñi nag soo nee damay rencontré diw ah moom mbaat dafa commencé changé déedéet ñun kenn ñoo changé kenn feesul suñu bët ku moo ci mën a rencontré man awma complexe kenn dinaa toog wax la ni ñun suñu gis-gis lii la nga wax ma loo xalaat su ma génnee def sama déclaration ne lii laa fa wax li ak lii te du soppi dara ci dañu mais dañoo nekk ci àdduna boo xam ne c'est un monde ouvert kenn mënul tëju ne man rek damay tëju fi ma ne gis nga temps yi États-Unis ak Russie ni mu gis nga Joe Biden dem na euh, criminel et tôt ou tard sera jugé mais teewul ak problème yi am actuellement en Ukraine moom moo njëkk talal naa loxo Poutine pour ñu daje ci pays neutre pour discuter toog wax ak ni kooku wala changé par rapport à ce gis-gis wala mais nous sommes dans un monde ouvert dinañu daje ak nit ñi dinañu waxtaan te euh, euh, ragaluñ ci dara ay ne ci pourquoi ñun ñu ne duñ dem ñu diaspora bi ouverture ñu am dinañ fa dem euh, programme yu am solo ñu invité au Togo pour une conférence universitaire sur le franc CFA la même chose mais d'autres thèmes au Burkina on va sillonner l'Afrique on va aller à la rencontre de nos frères et sœurs africains mais si on mën ci leader ci dañ fa duñ ci am complexe. Ousmane sa sama cadre euh, di sante Yalla. Euh bu amul fu yem di askanu Sénégal euh, ci sen taxaway ak ci ñun di len wax ni ko wax ko naam nit nit am nañu ay raison pour baña a wóoloti kenn ndax dañoo am déception amaat ko amaat ko waaye di leen wax ni bu dee ñun kese duñu dox aduna ba ñu ne suñu qualité gi ñu amoon ci Sonko wala ci Pastef ak ñi ñu àndal qualité googu tasna na suñu yaakaar tas na loolu du musa am parce que dara jaraluñu ko ci aduna su doon lu yomb rek lañu bëgg tay ji duñu toog fii di wax wala di daj lii ñuy daj yëpp bis bu ne nga dégg lu ne ñu lay pexel lu ne duñ ko daj mm-hmm. euh, euh, piis yi ñuy piis suñ ko nangu woon tey maa ngi yor samay milliards comme ñëpp yor samay immeuble di di yor ay responsabilité ci réew mi mais ñun loolu taxuñoo jóg réew mi bu soobee yàlla ci nii wala ci nele dina baax te suñu génération bii ñoo ko war a baaxal donc xam nañ li mu laaj te dinañ ko joxe ba mu mat sëkk di wax askan woowu nag lu ñu taxawoon nañ ko yokk parce que liggéey bi métti na waaye résultat bi soreetul di gërëm ñii ñu àndal ñëpp ci politique nag di wax tamit ni euh, ci ni ñuy liggéeye léeg mun na am ay tolof tolof léeg mun na am ay erreur parce que nit lañu nit ku mat amul donte man duma ma décider je mm-hmm. je ne de décision seul lu ñuy def rek dañ koy partager waxtaan ko doog xalaat ni nii la war a doxee waaye. nit moo matul waaye ñu xam ni ak lu munti am yéene gi moom toujours dafay sell yéene gi defar la yéene gi jëmale mbir mi fu baax la mais mosuñoo toog ne ñu ngi ci ay calcul yoo xam ne dañuy def lii pour euh, euh, pour pour pour ëlëmal nit ñi wala yu demee noonu nañu am présomption de bonne foi bu mooy ñun ñiy jiitu suñu responsabilité mooy nañu wóolu ñi ñi ñi ne suñu gannaaw moo tax man ni may responsabiliser du ma seet sax nit ñi lu ñuy def. du mooy responsabilité par di lu ñëtu di xool déedéet mais noonu la ñu bëggee nag ñi nga xam ne wóolu nañ ñu ba teg ñu ci kanam ñoom it nañu am confiance gu mat sëkk ci ñun xam ni fi ñu jaar ak li ñu daj ba si fii su amee ku yàq projet bi du ñun su amee ku koy wanteer du ñun loolu bu ñu ko dëppoo ñun ñëpp rek gëm naa ni ci des yàlla mun nañu ko yombalal te dinañu ko yombalal incha allah jërëjëf Rêu mi bánh na, do tu nu na ken lo nu. Rêu mi bánh na, de. Rêu mi bánh na de de, do tu nu fi na bu bu mo ja. mi bánh na, do tu nu na ken lo nu. Rêu mi bánh na, de. Rêu mi bánh na de. banna dootuñu nangu kenn noonu réew mi bañ naa déedéet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu bu mu jaar